maa ngi janoo ak euh, Serigne Khadim Diouf di koo xam ne yaakaar naa dootuñu ko présenté kenn ci Touba ci kanam euh, mu nekk ci siège bi yor lépp lu fa aju ci wàllu administration te ku ne xam na ne administration lu ama am solo la ci ab liggéey euh, fii ñu toll nii amul benn organisation boo xam ne dina dox ci àdduna bi loolu ne dañ koo tër ci administration bu leer waaye liggéey bu toll nii Touba ci kanam ku ne xam ne nekkatul lu ndaw nga yor wàllu administration bi liggéey bi ana naka ngeen koy saytoo yomb na yombul. waaw auzu billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaan rahim euh, ngi ziar euh, kilifa yi nekk ci jataay bi yëpp di rafetlu interview bi di euh, ñaanal sëñ Muntaxal Bachir mu yàgg fi loolu te ànd ak wër waaw structure bépp bu organisé wu rek war na am administration Touba ca kanam nag am na administration donte ne yombul ñi ngiy fexe di teg lépp ci yoon di ko structuré di ko tënk donc euh, du liggéey bu yomb nag mais administration mi def liggéeyam bu baax ngir mën a fexe ba murit yi li ñuy def ànd ak transparence allah surtout transparence bi ngay wax ku ne xam na ne seen liggéey ah, ah, dafa mel ne gis naa ne euh, mensuellement da ngeen di def ay compte publier ko ci internet bi wax seen état yi loolu loolu ci jub waaw loolu liñ ci rek mooy leeral dañ ne di laaj lu ñu mën di ko def fu ñu xam donc euh, administration hmm. Touba ca kanam dafa am ay commission am ci boo xam ne mooy gestion des fonds bi boobu chaque mois mooy def un bilan financier mooy def bilan bi wone entrée yi sortie yi ak solde bi donc euh, loolu yëpp ci liggéeyu administration bi la bokk. macha allah loolu administration finance ñoom ñoo ko yor euh, Touba ci kanam euh, projet yi ñu yor dafa mel ne dañ koo xaaj ci ay dañ koo xaaj dañ koo xaaj ci ñett yaakaar naa bu dee ci yi nga xam ne moom mooy yu njëkk yi moom yéen a ngi ciy dox li ngeen man wàllu sëkk dëkk bi bu dee it lu mel ne lu jëm ci wàllu ay hôpitaux wala yu demee noonu yeneen ciy góorgóor waaye li jëm ci wàllu yoon ci Touba surtout ci santé euh, quartier yi nga xam ne dafa xaw a sori tëli état moo koy def mais yéen est-ce que am ngeen programme waaw am nañ euh, programme am ndax li Touba ca kanam bëggoon a njëkk a def comme réalisation tali bi waroon a jëm bàq ya Touba ca kanam bëggoon na ko def à l'époque euh, ndigal jog ne ko orienté ci wàllu santé loolu bokk na ci li tax ñu njëkk cee kii mais Touba ca kanam amul frontière jàpp na lépp lu mu bëgg def war na koo mën a def sëñ Touba la àndal. macha allah tabarkalla sëñ sëñ Touba lañ àndal yaakaar naa ñoom moom ñooy dëggal wajal ilahi maskani Touba abad mislasmiha bi jaay xayri man abad yaakaar naa loolu Touba ci kanam moom moo jog ngir dëggal ko te amul benn taalibe nag boo xam ne léegi da wax. xaw ma fan laay dugal sama xaalis ngir liggéeyal sëñ Touba Touba ci kanam moo ngi nii transparence ak euh, pëstéef lépp am na kon yaakaar na sëñ Xaadim luy say kàddu tàggoo waaw am mbégte rek di ñaan euh, suñu borom gën ñoo dimbali ba yéene ji ñu amal liggéeyal sëñ bi aar ñu